asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi di nuyu maa ngi nuyu délégué de yi fi nekk yëpp di leen mën saw coono si toogaay bu yàgg bi dañu doon defaraat document bu gën a baax rek ñuy jéggalu bu baax a baax ci temps bi ah, di wax ni tey cérémonie bi ñu organisé ñu tuddee ko cérémonie de signature des contrats de quartier dafay bah, cérémonie boo xam ne dafay marqué engagement solennel pour apporter des réponses qui jafe-jafe yi nga xamante ne moom la population du Doudou, dund ci quartier yi dégg avec bu ñu le dialogue de Kër Massar identifié nañ jafe nous. yi bind nañu le projet municipal bi nga xamante mon moyen résumé jafe-jafe population yi waaye aussi indi solution yi ñu proposer ak cadre de gouvernance bi nga xamante mom la ñu fas pour résoudre yoyu problème waaye xam nañ ni problème yoyu dégg la concerne na quartier Kër Massar yépp mais quartier bu ci nek amna lo loo bokko ne ci ak sa borom moo taxoon nag ñu ñëwaat ci délégué de quartier yi wax leen de façon spécifique pour chaque quartier wax leen ñu lan mooy jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel délégué yi def nañu loolu ñu jël ñun engagement ci yenn préoccupation yi ne bu ñu yàlla mayee ndam incha allah dogg nañu pour régler yooyu jafe-jafe loolu mooy signature bi tey donc ñi ciy woo ñëpp parce que lu ñu bëgg encore une fois mooy comme ni ñu ko waxtaanee woon ensemble avec les populations de Kermassar pour identifier les jafe yi waaye identifier solution yi ñu projet municipal Nous non en ñu avec les délégués de quartier ak population yu nekk ci quartier pour signer ces contrats de quartier Nous en ak ñoom ëllëg inshallah à la conquête de la mairie dans loolu pour ñu doxal il faut ñu jël mairie bu ko defee ñu àndaat ak ñoom ñu def liggéey bi nga xamante ne ci war pour intérêt population donc ñu leen di remercier bu baax di leen di masaw coono encore une fois si toogaay bu yàgg voilà donc je voudrais dire cérémonie consacrée à la signature de contrat de quartier qu'est-ce qu'un contrat de quartier c'est un contrat qui lie la candidate que je suis Madame Assana Diatta et le délégué du quartier parce que nous avons, au cours du dialogue de Kermassar, identifié les problèmes auxquels les populations sont confrontées. À la suite de ce dialogue de Kermassar, nous avons élaboré le projet municipal. Mais le projet municipal traite des questions générales. Chaque quartier ayant sa spécificité, nous avons jugé utile d'avoir un engagement particulier avec chaque quartier. Nous avons donc saisi les délégués de quartier et nous leur avons demandé d'identifier les préoccupations auxquelles leur quartier de façon spécifique est confronté. Et donc, chaque délégué de quartier nous a fait la remontée des préoccupations. À la suite donc des préoccupations qui ont été évoquées, nous avons pris des engagements sur certains aspects bien clairs. Ce qui marque notre engagement ferme en tant que candidate, une fois élu à la tête de la mairie de Kermassar Nord, à réaliser les différentes infrastructures ou à apporter des réponses aux préoccupations évoquées par les délégués Donc cette signature est un acte solennel qui marque notre engagement ferme à respecter la parole donnée, il ne s'agit pas seulement de faire une promesse, mais il s'agit aussi d'affirmer cette promesse à travers la signature d'un contrat. Comme vous le savez, un contrat oblige les parties, lie les parties. Aujourd'hui, à travers cette signature, je me lie à la promesse faite aux populations. Je vous remercie.